jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nu leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Grand Yoff mbooloo fekk fi un grand sampion boo xamante ni kenn du ko werante ci làmb dëgmal bis bu rëy muy Fourrière bu Grand Yoff mbooloo mooy waaja a ki nga xamante ni mooy Bébé Diène Bébé Diène mi ngeen xam menn mi sampion bi Fourrière nag dinaa xam lan moo tax mu jël Bébé Diène ak fan la jóge ak fu mu jëm ak lu waral loolu Fourrière lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu mbokk internet yëpp nuyu monde entier di nuyu waa Sénégal gi yëpp waaw rawatina fu ma fu ma sookeekoo nii muy Grand Yoff aw ma dul Grand Yoff te ñoom it amuñu dul man di leen nuyu bu baax a baax a baax te di leen woo si combat bi ñoom ñëpp ñu ñëw di sant di sant ñëpp ñoo xam ne tamit dañ may jàppale bu baax a baax waaw di sant Grand Yoff gépp daal. ma ñëw fekk la ci équipe bi ngay contact sa komba dox sa diggante. ak bébé Diène avant ñuy dugg ci combat bi dinañ ci ñëw dinañ ci gën a waxtaan waaye Fourrière lan moo la dugal ci làmb. waaw lu ma dugal ci làmb dañu nekk ay ndaw rek xam nga làmb séeréer bi jege ñu xam nga ñu ñu tàmm fooyee foofu noonu ba dem ba am amuru làmb ji waaw loolu moo dugal ci làmb te dañoo dugg ci làmb rek maanaam mbooloo bi toppuñu ñu loolu boobu ba léegi tamit xam rek ñun ay góor lañ duñu duñu mën a bàyyi amur boobu lañ am ba dugg ci làmb. mbooloo bu bari day jugee Grand Yoff xaar yàlla rafaat ñëpp ànd ak yow mbooloo moomu fuñ la toppee. waaw mbooloo mu ñoo dem ko dund ak ñoom mbapat rek daanaka man balaa maa dugg arène sax fekk sama tur law na garab bi yëpp parce que dama dama mbapat loolu noonu quoi waaw te fu ma dem tamit sama gaay mafia bi ñëpp may topp ànd man ba looloo waral tur bi ñëw na avant avant arène quoi ci garab bi. nga bëre ñaata combat arène. waaw am naa onze combat arène de. waaw te deux te 2015 la la la la la door si làmb arène. bi. waaw 2015 waaw. ma am ci 9 victoire 2 défaites. palmarès bu sax ay vraiment 9 victoire 2 défaites kan ak nga daan. waaw ñu ma daan daan naa Albert daan naa Goro Fall daan naa Cheikh Super Jamono. daan Siteu bu Saloum waaw. daan Siteu bu Saloum daan daam Boy Jobaas euh, John Wayne waaw ak ak bu Saalum waaw. Mhm. man kii moom a daan Thielly moom daan ak kii Laay Soppe. Mhm. Mhm. Thielly ak Laay Soppe. Laay Soppe bu Bada Jom. waaw waaw moom la waaw. moom la daan a daan waaw. ay champion ñoo la daan boo tuddee Thielly tudd lay Soppe ay champion la mais nga jël nga jugee ci ñooñu ñëpp. jël Bébé Diène lan moo tax nga jël Bébé Diène ak lan moo xew ci Bébé Diène ba nga jël ko ndax gis nga Bébé Diène li muy def ci làmb ji bëre dóor rawatina ci bëre simple yi fu mu dem yanu drapeau ba yóbbu luñ fa teg ci mise mu jël ko nga dem jël Bébé Diène lu ko waral. waaw sama combat maak Bébé Diène làmb la rek comme yeneen ko làmb yi quoi parce que daanaka boo nekkee si dara di ko def da ngay bëgg di dégg daal yi te boo bëggee dégg daal il faut ngay daan ay champion. waaw euh, loolu moo ñu dugal si moom te maanaam combat bi du question combat boo xam ne sax maa ko soxla parce que man lu ma def si arène daan na ko moom defu ko lamb lutte avec frappe victoire mu ci am amu ko mais lamb moo ñu boole promoteur bi yàgg na ko bëgg mais xëy na ren la ko yàlla dogal di ñaan jour boobu yàlla may ma si ndam rek waaw. promoteur bi tëgg ko bi mu koy tëgg metti woon na ci yow démarrer combat bi jafe woon waaw jafe jafe na jafe na trop pour mu tëgg ko parce que yàgg na ko bëgg moom laa lay wax depuis combat Ama Baldé ak Papa bi boobu la ko bëggoon spécial waaw yàlla def antuwul xëy na nag ren jii a ko yàlla dogaloon waaw di mobiliser grand bi yëpp te fii la dàqee sax parce que fii ñun grand combat la ñuy bëri suñu yëfu bopp la waaw di mobil di di woowaa grand bi yëpp ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si parce que ndaw laa te tamit ñoom am nañ yaakaar si man trop yàlla bu seen yaakaar di leen woo ñoom ñëpp ñu génn ñëw jour boobaa ndiis bi suñu ndiis la quoi. yaa Bébé Diène ku daq bëre. waaw ku daq bëre ak ku dàqul bëre moom loolu bu jour boobaa ah, Sénégal bi yëpp dinañ xam kan moo dàq bëree maak moom ak ku dàq xeex euh, te instant ni nii maanaam favori bi ñëpp dañoo ne moom la waaw na ko jël rek ba bis ba bu bis boobaa dinañ xam quoi dinañ xam làmb dina làmb dina dina juge bu jour boobaa. Mhm. pare nga pour xeex ak moom Bébé Diène arbitre bi ne prix ngeen suul seen di tànk jàkkaarloo xeex. <laughs> waaw xam nga làmb la rek làmb moom bëre door la ñu wax dañuy préparer door bi préparer préparer euh, préparer bëre bi en tout cas daal lu mu ñëw dina ko fekk incha allah te man bëgg naa bëre moom ba amateur yëpp bëgg parce que làmb ji làmb amateur la xam naa ne moom bu jour ba amateur yëpp dinañ ko teew incha allah waaw. kan moo tëgg làmb ji. làmb ji moo ko tëgg. waaw Baol production moo ko tëgg waaw. Mhm. làmb ji doon kañ lañ ko jàpp ci mois mars bi. waaw le 14 la. samedi lay tombel sax di ci woo waa yëpp ñu ñëw jàpp si di ci woow autorité yi autorité bi parce que man ndaw laa boo xam ne ne nii mbooloo moo topp sama ginnaaw te tamit dañuy soxla ñoom seen seen seen seen seen appui bu baax a baax pour pour ñu mun a jëm kanam quoi parce que làmb moo toll foofu jamono bi ku nekk sa autorité gox yi ñoo la mën a jàppale ba nga jëm ci kanam te ñun ay ndaw lañ te gëm nañ lu ñu def di leen si woo bu baax a baax pour ñoom ñëw jàpp si quoi. lan ngay wax waa écurie Grand Yoff parce que bi saison bi ubbee ba léegi diggante daaw ak jéeg ak daaw ak ren gis nañ ni Grand Yoff daal kenn demul ñu des. boo gisee loolu waaw ay tolof tolof la woon rek euh, di leen euh, ku mel ni mobile naan di faal di leen wax ñu ñëwaat dóor affaire yi moom kenn moomu ko ñëw liggéey rek ñoom moom ñoom ñoo tax sax ñun ñu doon li ñu doon nii parce que ñoom lañ gis ñuy bëre ñun ñu am amaru bëre bi tamit waaw ñoom tamit jàpp nañ suñu suñu carrière bu baax a baax a baax presque fekkee nañ lépp sax waaw boo gisee daaw ak ren nag lu fi am boo gisee ren ji nga xam ne changement am na te ñu ngi jëm si combat boo xam ne ne grand bi yëpp koy xaar. gu ngeen ko parce que daaw euh, kii di Nandi Fall bëri na ci ñaari sorte yoo xam ne benn bi moom ak euh, soq da koo ñàkk mu bëriwaata ñu ne waaye mu jël booy bi dëkk Langsar nu mu tuddati kolifay Faye numéro mu ñàkkati combat boobu euh, TF TFP bi kii di euh, mobile tamit noonu la ci defoon moom bi mu duggee ci compétition ba la ñu yaakaaroon ci ñoom ñëpp gisuñu ko ci ñoom lan la entraînement yi dafa des ci Grand Yoff wala da ngeen amul jàppale wala lan moo xew. Uh-huh, mooy lu ma la rek. xam nga làmb moom ku ku si nekk boo sañoon saa yoo demee da ngay da ngay am ndam xëy yàlla moo dogaloon jour boobu seen jour quoi mais ñoom moom ku leen xam ne ne ay ndaanaan lu am la ay champion lañ ci biir Grand bi te ay référence lañ tamit waaw mais entraînement bi moom mu ngi fi moom parce que da ba nga ñëwee da ngaa fekk ñu nekk si entraînement bi nekk si ñu war quoi. Uh-huh. yow moom dafa mel ni pare nga yaa ngi ci combat bi ndax weer li des ci combat bi mun naa ne ndax euh, janvier bi presque jeex na waaye dafa mel ni fi mu toll nii xam nga adversaire bi nga jël xam nga dayo bi mu am xam nga ni mu mel ci bëre ndax moom làmb simple boo dem di nga fa gis bébé Diène di nga ko gis ci contact yi di nga ko gis ci entraînement yi moo waral moo. waaw dëgëla làmb la rek làmb la mooy lu mu la ko waxee woon rek làmb la ñu làmb du ñu dépassé parce que depuis mbapat lañ lañ tàmm bëree bëri ay combat derby bi waaw moo tax làmb mënuñu dépassé si benn boor. waaw làmb la comme yeneen làmb yi ñu ngi koy préparé comme euh, nu ñu daan préparé suñu combat rek mais bii dafa gën a yokku quoi mais euh, kon ko grave dafa am fenn foo xam ne teg nañ fa man caaxaan waratuma quoi liggéey rek moo war te di leen ci woo ñoom ñëpp bu di leen di ñaan yàlla tamit yàlla bu yaakaar musa tas euh, grave nu mu ma yaakaaree yàlla bu seen yaakaar musa tas si ñoom. làmb simple yi mus nga cee dajeeg bébé jën. non non mosuñu bëre làmb simple nag dëgg-dëgg mais boo xoolee nag dafa mel ni maa ko jiitu si arène. waaw. ci arène waaw ma maa ko jiitu si arène maanaam ma waa ma waa nombre combat yi nga bëree bëreewu ko. voilà nombre combat yi ma bëree moom bëreewu ko xëy na waa dëgg la am na tur moom am na tur si làmb parce que ku si nekk tey jii nii bëgg nga bëreeg Bébé Diène dëgg moom nee na adversaire dañ ko doon daw maanaam ñëpp dañ ko doon daw tey jii doomu Grand Yoff bi jël na ko doomu Grand Yoff bi moom ragalul dara zëngal la xam nga képp koo xam ne ne nii làmb nee na euh, làmb làmb ji maanaam gars yi xool nañ ba ne carrément yéen ñaar war ngeen mën a daje rek man buñ ma seet see du am benn problème waaw damay bëre parce que ndaw laa te dama tool si bëre te dama bëgg a prouver comme samay morom mi nu ñu prouver waaw moo tax man mënu ma daw adversaire mhm. yow yaa ko jël wala say mbokk ñoo ko jël wala yow yaa xool ni combat bi bëgg nañ ko bu yàgg doxul sottiwul ma jël Bébé Diène pour rectifier erreur yi nga xamante ni mu ngi koy def ci làmb ma ne ko carrément Bébé Diène dama koy jàpp duma ko daan ko. waaw làmb ji làmb la rek bu amateur bu soxla comprendre nga parce que ba bañ ko woowee moom dafa d'accord man bañ ma woowee man dama d'accord loolu mooy wan ne ne làmb ji maanaam amateur yee ko soxla te moom gaynde la. comprendre nga jour boobaa moom dama koy ñaan rek comme ñëpp xamee nañ ko gaynde la moom bu jour boobaa ñett ñu taxaw dina taxaw rek ñu neexal ko quoi. waaw. lam nga koy wax mu ngi lay seetal. waaw lu mu koy wax mooy na gën a gën a kii rek na gën a góorgóorlu rek si lu muy def comprendre nga. làmb ji moom maanaam nañ ko bàyyi ak lépp ba jour bi rek man bu jour boobaa dinaa ñëw taxaw bàyyi ko nee na ma ñëw ma ñëw taxaw moom lu si war yëpp moom moo koy def naa ko wane ne jour boobaa ndiis bi sama ndiis la te bu ci tegee loxoom tàppit lay dégg. Hmm. Hmm. yow di ne ko tàppit. sama déggoolu ma la xanaa ndiis bi. Hmm. waa pour waa Garaaf la. ndiis bi sama ndiis la waaw bu ci tegee loxoom day dégg tàppit kon ñu ngi lay jaajëfal Fourrière. waa ñu ngi leen jaajëfal yéen bu baax a baax euh, di waat autorité yi rek ku ci mel ni Adama Faye Cheikh baaxum xam nga euh, ku ci mel ni Abdoulaye Diop moom yàgg na maa jàppale Badara Kebe ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di woo Boubacar Camara ku ci mel ni Boubacar Camara ñu ngi lay woo si làmb ji bu baax a baax ngeen ñëw jënd billet yi yéen ñëpp ngeen ñëw jënd billet yi may ko may ko may ko waa Grand ñu dem mobile def mobilisation bu doy waar. bilaa ñu yëngal yëngal bu baax a baax ba gaa yi xam ne ne waa Grand Yoff ñëw nañ autorité yi tamit il faut ngeen ñëw di ñu jàppale parce que ñun ay ndaw Grand Yoff te ay yaakaaru waaw boo comme yeneen autorité yi nu ñuy jàppale seen gox ñu bëgg nañ tamit suñuy autorité yi tamit di ñu ko jàppale te parce que fii ku fi mel ni ay Khalifa Sall ku ne dégg nga leen fu nekk comprendre nga ñoom ñoo ñu war a a jàppale ñun ñu ñuy dégg quoi parce que làmb loolu la laaj jàppale bi comprendre nga ok oh, euh, promoteurs yi ñoom dañuy soxla mobilisation te mobilisation bi maanaam booy ñun booy par exemple da ngay gis sax ku bëgg a bëgg dem stade mais du am du am wéccit bu muy demee quoi mais da leen koy jaral billaay lu ne la ñuy daj booy yi pour pour pour ñëw stade defar set xam lu nekk ñu dugg ci xam nga génn grand moom dañ leen di woo rek dañuy euh, dañuy continuer di leen woo rek saa su ne di leen ñaax pour ñu ñëw gën ci jàpp métti na waaye mais nañ si gën a jàpp rek xëy dina ñëw incha allah te incha allah euh, le 14 mars moom suñu ndiis la quoi. waaw loolu laa jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ni moom la Fourrière wax xale la boo xamante ni jël na bébé Diène Fallou Ndiaye moo ko tëgg Assane njaay moo ko tëgg Baol production moo tëgg làmb jooju fële ca arène national ñoom ñaar nag ñaari xale la ndax bébé Diène am na ci lu mu jóge am na ci lu mu jëm moom mii nga xamante ni mooy Fourrière am na ci lu mu jógee am na ci lu mu jëm mbokk yi kon bu leen ko rate dinaa dem jëli bébé Diène waxtaan ak moom ci làmb xool lan lay waajee ko mbaam diggante moom Fourrière jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb ba ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb ak beneen champion jaa ngeen jëf mbër.